xam naa bu dee ne dina am lenn lu ma ci. Euh, mhm. jubbanti professeur Cheikh Omar Diagne. waaw lenn képp lay doon mooy. Euh, nit ku nekk. Mhm. Euh, da ngay xam responsabilité yi ngay am ak ni muy soppeekoo. cest dire que période bu nekk ak li nga xamante ni ci ngay nekk. période bu mhm. nekk itam ak cër bi nga xamante ni moo lay dab moom ngay incarner après day tax ba. étape boo toll rek nga xool ni nga xamante ni moom ngay communiquer ak noonu ngay génnee li nga xamante ni mooy sa ay gëm-gëm. mais man wax dëgg yàlla personnellement man Mansour Dramé. dégguma dégguma ci dernier discours yi ma dégg man ci seex Omar Diagne loo xamante ni jar na fi coow li nga xamante ni yëpp jëm na ko. Mhm. bu dee ne nag ki nga xamante ni moom démb ak barki démb dafa yéenewul woon Cheikh Omar Diagne mu dund bay tekki wala boog itam bay euh, tekki dara ci Sénégal. Mhm. xëy bis ñu ne la mu nga biir euh, présidence. Mhm. dina am naxaru xol woo xam ne dina ko def ci yow ba nga xam ne. lépp loo xam ne def na ko rek doo am xolu mën ko muñ waaye itam di nga créer li nga xamante mooy problème pour jëm ko jaxase ak li nga xam ne mooy di askan bi parce que. maa ngi njëkk taxaw rek ci euh, li mu wax ci mbindum mbindum suñuy mag mhm. man de li may wax témoin laa si te mhm. euh, bu ma ko bu ma ko yar ak teggin mayoon ma tudd ko mhm. mais ñun nit ñu fare nit ñu jaral nit ñu yaree ak nit ñu jàngalee jàng nañu téere boo xamante borom téere ba dina wax ba jeexal téere bi ñuy wax risaala boo koy jàng ba mu jeex borom risaala fi muy fépp foo xam ne étape la mu war a tuddee sëriñam du wax turu sëñ bi mais cheikh bi rek lay wax li tax loolu mooy daf ne dafa gëm ne sa kilifa boo ko tuddee ci pénc wala boog itam ci bërëb boo xam ne mbooloo fa nekk wax ci moom loo xamante ni amaana ñëpp duñ ci d'accord ku ko fa déngal rek yow yaa ko yóbbi parce que mm. yaa ko fa tudd mm. kon looloo tax ba du ma tudd kilifa yi may wax ni mais lii man lu ma lu ma témoin la lu ma fekkee la mm. mbindu suñuy mag mm-hmm. ba ci kudul suñuy mag mm-hmm. amu ci lu parfait mm-hmm. wala boog itam duñ ko séntu ci parfait parce que mbind bi d'abord man fekkee naa mag boo xam ne bind na téere ay at ay at laa wax de. nit ñi mokkal ko nit ñi ay taalibeem di ko jàng ba mokkal téere boobu. man téere boobu ba bu ma toogoon tey di ko jàng soxlawul ma koy ma koy liir. mais toog na ay at wootewaat ne téere booba it sàngam. satru bu mujj ba na ko nañ ko changé. wax lañ cay mu changé ko. bind na téere toog ay at wala boog itam ab diir. Mm-hmm. sàkkuwaat képp ku yoroon téere booba nga indil ko ko. mu def ci ay joyanti mhm. parce que am na nu mu ci waxee woon ci ay ane ba mu koy bind dem na ba beneen jëmmi jamono yëg nga ne waxin boobu am na lu ko gën a jekk mhm. ñu defaat ko si léegi nag su nekkoon ne wax boobu ba mu ko waxee lam njëkkoon wax daf ko wax avant muy génn avant maanaam génn àdduna mhm. avant muy def remarque boobu remarque boobu bu ko deful ëllëg njabootam wala ay sëtam ñooy ñëw def remarque boobu ne ah suñu maam de moo bindoon lii fii waaye nag fii bu mu ko bindee nii mu gën a jekk waaye yan sët ñoo koy def mooy yi nga xam ne jël nañ wiraasa bi ndono li muy xam-xam bi jàng ko ba yegg ci capacité fa seen maam tolloon am na suñ mag ñi ñoo xamante ni tey buñ dellusiwaatoon yàlla xam na ne téere yañ bindoon yëpp danañ ko jël lakkat ko parce que gëm-gëm bi ñu amoon ak vision bi ñu amoon ba tax ñu bind téere yi bokkul ak tey ñun niñ koy jëfandikoo est-ce que da nga jàpp ne suñ mag ñi ba ñuy bind seen ay téere ni ko li ñu di fooyee ci tànt yi nii moo taxoon ñu bind ko hmm. dégg naa ci net li benn kilifa goo xam ne bind na téere ci yonent bi sallallahu alayhi bis muy dox ci mbedd dégg koo xamante ni mu ngi ci këram di ko jàngantu mu am lu ko naqari ci xolam que ne moom bi muy bind loolu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam xaal la bu mu tolloon boo xamante ni gëm-gëm lu gu mu amoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba tax mu bind ko mm-hmm. te bokk na ci lam ci ñaanoon yàlla bu mu dox ba kenn di ko fooyee ci mbedd te gis nga ne suñu tànt mm-hmm. def ci concert yi ñu ngi koy def ci tànt yi te mm-hmm. pourtant wax lan moo ci problème manipulation ñu ko ci génnee day jeex takk waxul ci dara loo xamante ni problème la. Mhm. ci côté mbind mi man li ma la wax nii li ma fekkee la mag boo xam ne bind na téeréem muy téere ñaan mu dox quelque temps mu ne abiyat sa bayit sàngam satru ba ba bu mujj na daf ko changé téere boobu mool boobu képp ku ko yoroon fexe nañ ba jokkoo ak yow wax la nga changé satru bi nga xam ne changé na ko ci. Mhm. te pourtant bu nekkoon ko parfait du def loolu. bu fekkoon ne gëmloon ay taalibe ne moom ku fa ku parfait la même bu leen waxee sensé ko dañ ci insister que ne sëñ bi du bind lu lu motul. Hmm. maanaam am na mbind yoo xam ne mën nga ko séparer ak dimension wala boog itam gëm-gëmu nit ki tolluwaayam. Hmm. est-ce que da bëgg wax rek ne maanaam man ma Mansour Dramé kilifa laa li ma bind c'est-à-dire que loolu mooy refléter man sama gëm-gëm en 100 pour cent ba nga xamante ni bu ma sàkkoo ñu remettre en cause sama tex hmm. nga ne sama gëm-gëm moom nga bëgg ñu delloosiwaat ko. du ma ko jàppee noonu duma ko teg foofu. li may gëm mooy toujours suñ bindu na mag ñi am est-ce que xam nga ne am na mag ñoo xam ne tey ñi ñuy tooñee ebaadu jéppi nañ leen wala boog itam ñu ngi leen di xas te fekk ni ñuy liiree seen i njaboot ñuy liiree seen texte moo tax ñu def ko mais mag ñi carrément liñ doon ak ñu bind bu ñu ko jàngalee li mu doon yàlla xam na ne amul jullit bu leen di contre mais le problème mooy businessman yi dafa bari ci biir ñi nga xamante ni ñooy topp tànku mag mooy da nga jël ay xasida jël ay téere mag. amo liggéey amo xëy amo ngont lenn moy ci liggéey wër tànt ak di conférence ak gàmmu doko tek ci liko ko mag ñi ak itam deug non non non doko fa tek de mais da ngay xool nag nga meun def pour chercher sensibiliser wu momo pour chercher pour xol nak nga meun def pour pousser euh, tata ba nga xamné li ci posam li ci kalpem dina ko génnee joxlo ko dem ba nga xamné yow sa bopp yaa koy reconnaître sa bop que ne man amuma liguey ligueyuma ci wax ji ci lay dundé kii dundee ciy wax nag kooku xam nga ne wax ji nu mu gën a xumbee noonu lay def mais ku nekk xam na ne gëm-gëm wala boog itam ñenn ñi taxawaay yi ñu am tey ak suñu ay mag ci seen ay mbind wallahi laasim bu mag ñooñu del si waatoon danañ jël yar dóor leen ba ñu bëgg dee duñ ci yem mais lu bëri ci seen mbind danañ ko retirer parce que intention bañ ci amoon mooy jubal askan bi yar askan bi te pourtant bind nañ ba sonn bàyyi fi mais ba léegi nga gis ne am na ñoo xamante nii mokkal nañ xasaayit yooyu mokkal nañ euh, xasida yooyu ak lu mu mënta doon mais dem nañ ba xamante nii maanaam Euh, fowukaay lañ koy def ci ay mbedd japp naa ne Cheikh Oumar Diagne bu waxé lolu day baax réponse yiñ ci am na doon réponse yoo réponse yo xamné ci xam-xam lay tegu mm-hmm. dëgg la niveau bi mu tollu ak itam li nga xamné mom lay incarné jamono bi ak euh, suñu suñu république ni mu defee lay lay bi ni noppalé li nga xamné ne moo di ji ba nga xamné président du taxaw di àtte yeen tariixa sangam taxawé leen nii tariixa sangam taxawé leen ni léegi mën moy sen ay programme ñu encadrer leen accompagner leen and ak ñom libre ci noppalu ci kon bu boobaa kon boo ñëwee ci biir institution yu toll noonu di fa liggéeyee yow itam position ya nga doon am démb ak barki démb soxlaatul nga koy wane wala boo itam di ci di ci di ci xuus bu muy indi yenn problème yi mais est-ce que ki nga xamante ni mu ngi ciy débat tey la muy propos yi muy toppee si Omar Diagne. tey la ko wax wala démb la ko waxoon. démb. institution teguwul woon ci kawam amul lenn loo xam ne tegu woon na ci kawam amul woon benn responsabilité bu tegu ci kawam. maanaam nekkul woon hmm, ne dafa jàng xam. am am am am am xam ne moo di contradiction comme ñëpp. Hmm. da jàpp ne contradiction yi amuloon suñu suñu ay mag. ñun dafa fekk ne dañoo ñëpp jamono boo xam ne dañoo bëgg lu yomb c'est-à-dire mooy wax bëgg lu yomb mooy ñeme gëstu c'est-à-dire que da ngay wax benn affaire rek ñu ne non loolu dafa sensible noppil bu ci wax. te pourtant lu sensible loolu noonu dañ ci war a wax creuser ko ba nga xamante ni yow danaa ci xam lan moo ci sa position. Hmm. man nga xam lan moo ci sama position bu bu dee dëgg nga sax ci li nga nekk bu dee du dëgg nga fexe génn ci loolu mooy problème loolu mooy loolu mooy solo bi. mais nekkul mbirum xastante wala saagante. xastante wala saagante ki koy def mooy ki amul argument mais ki am argument na fexe ba toujours mooy taxaw ci argument am yooyu. Mm-hmm. mais bëgg lu nit wax nga ne lii dafa sensible nañ saaga nañ nangam diine dañuy wax ne amul tabu. waaw kon lan moo tax kon nit war a nekk ci biir diine jooju moom après euh, bëgg bëgg am lu concerné diine ji ñu ne lii moom kenn du ci wax wala bëgg tam kenn du ci àddu te ma war doon loo xam ne luy concerné ab société la wala bëgg tam ab peuple la loolu jàpp naa ne discours naa feeq la boo xamante nii dafa yàgg nag ci ñun dañ koo tàmm mm. Sénégal mooy réew boo xamante nii dangay ngay toog micro bii di tàkk ñu laaj la benn mbir nga ne ah nii la gën a rafetee naa ko waxee nii Cheikh Omar Diagne propos yu yi mu doon wax yàlla xam na ne bëri na ñu mu bokkal gëm-gëm ci Sénégal ñuy toog ci plateau yi di wax koo ci jël ci suuf même li discours bi Cheikh Omar Diagne di wax moom la lay wax. Mhm. mais du ko wax ci kaw mukk parce que dañuy tàmmuwaat baatu rafetal. Mhm. rafetal rafetal rafetal mais nit ki wa waxal ñu xam yaay kan. Mhm. waxal ñu xam yaay kan. mais soxlawul ngay làqu ci lii waaw làqu ci lee man daal en tout cas gisaguma wax dëgg yàlla ci kàddu Cheikh Omar Diagne yi nga xam ne man jot naa ko dégg. lenn loo xamante ni wu ak naag luy xotti war may suñu ay mag. suñu mag ñi nag day baax nga xam lu leen di protéger mooy xam-xam moo leen di protéger mais nekkul euh, xër gu ëpp nekul daanu jël nekul leneen. dembu dafa am ben plateau bu ma koy wax mané Sénégal ci ngay ñëw gis ben kilifa bo xamné amana amaana moy tand ay talibé yi koy top ku am milliard ku am auto yu rafet ku am nangam mais lool jumte la yashabu sayqan sayxan al masalik yaqihi fi tariqihi al mahali ki ngay àndal day doon koo xamante ni yuskiruhu llaha isaraa wa yusilul abda ila mawla mooy peesekaay bi ngay bi ñuy peesee sëriñ bi ngay topp bu dee ne yow ki ngay topp amul capacité wu li ma wax nii. soxlawul nga koy topp wala boo ko toppee fu ngeen dem yow yaa fa yóbbu sa bopp mais moom yóbbuwu la fa parce que bi ngay topp nit ki dañ la sant nga natt xool ba xam kii ngay àndal kan la. Hmm. mais léegi nag nga mën demee ci Sénégal boo xamante ni euh, toppante gi moom dañ koo teg rek ci jaama neex après nag bu topp boo xasee am itam dañ koo teg ci kenn du ci wax kenn du kenn du kenn du kenn du. Sénégal suñu ay kilifa dina liggéey nañ fi lu bëree bëri lu am am solo mais nak ndono li nañ fexe ba mu sax fi dess fi. te itam di téggu ci cadre xam-xam. toujours ñuy jital borom xam-xam yi. dama dégg euh un jour biñu ñu ubbi Bourde tiawon ko xamné mu ngi tiré ci kaw Cheikh Omar Diagne. mais mom lu yagul dara lan la fi wax Ousmane Sonko mom jëm ji wax lolu un vulgaire violeur la traité Ousmane Sonko ñëpp di ko dégg kooku sañ naa woote kenn ci am yar ak teggin mu ngi làq ak ko xamante ni taalibe la ci kër waajuram lu yagul dara Ousmane Sonko li fi gor jigen jigéen bañ tëj ko ci kasso est-ce que da nga mos a dégg mu condamné ko ñaawlu ko. mosuma dégg mu taxaw ñaawlu propos Cheikh Tidiane Ndao moom ci mom taxaw publiquement ñep diko ko dégg ci affaire Adji sar Ousmane Sonko mom mu ne Ousmane Sonko un vulgaire violeur ñep diko ko dégg. léegi kooku ma bëgg taxaw tay di gëmlo Sénégalais kené Cheikh Omar Diagne amul yar amul teggin ñi ma gis ñenn ci ñi défendre nii que ne euh, Cheikh Oumar Diagne dafa ñàkk teggi mhm. ñoo doon taxaw barki démb ci plateau TFM ak feneen ak feneen nekk gërëm na dañoo dem ci jumaawu Touba di fa taal ay pneu même personnes yi ñoo doon wër palaato yi ne Ousmane Sonko ak ñi àndal dañoo dem ngir mabbu xabu Sëñ Tuubaa mhm. léegi jëmm jooju moo war a ñëwaat tey gàdduwaat coow li man ma bëgg ko jël au sérieux jàpp ne kii dëgg lay wax dafa am ñoo xamante ni xeexal lu ñu diine ji xeexal lu ñu itam mag ñi ñoom ci seen bopp mag ñi bu ñu dellusiwaatoon dañ leen di randal choisir Cheikh Omar Diagne moo gën moo moo leen di gënal sax ñu leen di choisir ñoom. Mm-hmm. ñu dal. Mm-hmm. léegi nag le problème mooy régime bi bi mu yegsee dafa am ñu bëree bëri ñoo xam ne dañ mm-hmm. ko waral mooy ñàkk tawhid gis nga mais jamono bi mooy dafa bëri ñoo xamante ni ñu ngi bokk ci ay këru diine. jànguñu jànguñu yaruñu pour mën a am tawhid bi ñu war a am seen digg ak seen borom. ba fu ñuy waxee da ngay sentir ne mbégtewu askan bi la gën a wër. mbégtewu ay autorités la ñuy a wër que mbégtewu borom bi. d'accord te suñ mag ñi jub jubal ak jubanti gi ñii wax nii tey suñ mag ñi loolu dañ leen ci fekk moom lañ yaree seen ay njaboot. taw mhm. yit gi war nekk ci ñoom bu nekkoon ci ñoom. Mhm. doo tiit ci Macky Sall wàcc na. Mhm. na est-ce que intérêt ba mu daan am daan naa ko daan gëm mooy taw boobu moo lay jàpp ba nga xam ne kuy am ku nekk suñ borom moo lay jox kuy ñàkk suñ borom moo lay xeeñ jomaay mënul joxe mënul xeñe d'accord comme ni ko seen bés wooyo woon bi ñu defee demande bi ci euh, King c'est ma sëñ naa ni mu ko woyofale woon xam nañ ni naturellement soxla la bu ñu amoon demandé nañ ko moom sëñ naa amulu c'est simple jeex na. Mhm. sëñ ba simpleel ko jeex na loolu mooy mbiru kilifa. mais am ñoo xamante ni xam nga carrément seen discours démb ak barki dem yaa ngi ko doon dégg ku ci mel ni keneen sëñ Mamor Mbacké nga gis sëñ Xaadim Nangam. Mhm. keneen na keneen demal nga dégluwaat discours màggalu Daaru Musti bu daaw. Mhm. boko deglu ba pare nga dem ci ñi nga xamanteni yaang doon gis ñu leen def manifestation bobu mhm. nga deglu discours yi nga xam nga nga xolal ma profil yi yi nga doon deg ci discours daaru musti bu daaw bobu nga deglu wat lay wax d'accord d'accord mansour euh, ci lu ci lu gaaw rek est-ce que tay euh, d'après cadre yi nga fi yëkëti yëp amna solo lool est-ce que jotul tamit ki di euh, cheikh omar diagne ginaaw legi dafa am ci bor bo xamanteni dafa teunk muy état est-ce que jotul tamit mu daldi changer li nga xamanteni ni bi moy langage am

ne utlubul ilma walaw bi siin gëstu leen xam-xam doonte da ngeen dem ba siin te ku nekk xam na ne siin boobu ba mu fay ba mu ba mu ba mu koy junj nekkul l'islam lañ fay jàngi nekkul julli lañ fay jàngi nekkul woor lañ fay jàngi mais contradiction carrément la xamoon ne mooy li war di alimenter ñun suñ dund contradiction ni ñu koy soxlaa ci politique bi noonu la war a amee même ci diine ji mm-hmm. da nga jàpp ne sëñ Touba ñeme contradiction du moo ko d moo ko du moo ko dugal fi mu ko dugal Seexul Xadim bi mu fiy dund am nañ ñeneen ñu mu fi bokkaloon di dund mais dafa tan dundinam tek ko ci lo day ay conviction am défendre. Mhm. du tubaab momay may imposé gëm du momay imposer imposé du ci ni may sama gëm-gëm ci l'islam moko yobé que ko yobé bam am ci résultat bu bi nga am ci. Mhm. mais pourtant bu bu choisiroon rek comme ñen ñi koy sujet la ci ci wax lu ñu ngi

ci ñu naan ko yaa ngay faagaagal suñuy mag wala boog yaa ngi euh, doyalal suñu ay mag suñu ay mag liñ fi liggéey Cheikh Omar Diagne tuuti na ci yàq ko tuuti na ci euh, teg leen nag su dul noonu. Mhm. léegi nag lay problème bi nag mooy ndax yow miy wax loolu Cheikh Omar Diagne da nga gën gëm mag ñi wala da koo ko gën a bëgg mag ñi wala da nga ko gën a respecté mag ñi Cheikh Omar dafa xëy bis comme ñi ko ñu baree bari defee dem cib sëriñam jokku ci moom mu jox ko wirdam mu nekk di ko utiliser